ndax ku ne xam na ni euh, sunu programme ñun waa King Cosmétique dafa bokk ci 14 régions yi nekk Sénégal yépp fu ci nekk ñu ibbi fa bitik dippee ko King Cosmétique li ko waral nag mooy bëgg a jege askan bi ndax gis nañ ni euh, diw yi nga xamante ni moom la ñuy jaay ci dëkk bi diw ci bëree bëri dafa am produit chimique bu ne la produit chimique nag mooy base boo xam ni dafa am hydroquinone lépp lu am hydroquinone pourcentage yi bu jéppa bu dépassé 3 ou 4 pour cent rek mun na nekk loo xam day day gaañ mun na yàq yaram ñun nag boobu ba léegi ñu ciy liggéey am ci jéego bu sore sori sori euh, ñu koy xeex di litti li nga xam ne mooy chimique ak hydroquinone moo tax ñu lëkkaloog waa Thaïlande nga xamante ni euh, derrière King Cosmétique y a des dermatos y a des grands dermatos derrière King Cosmétique aussi y a y a des médecins les grands médecins euh, liggéey bi nag actuellement moom fu mu toll ñu bëgg koo yaatal ci 14 régions yi nga xamante ni moo nekk Sénégal yëpp fi may njëkkee nag samay kàddu mooy équipe bu King Cosmétique bi maa ngi présenté équipe bi ñu àndal yëpp tàmbalee ko ci place bi nga xamante ni moo nekk Pikine Massa Zeng centre commercial Soxna Khadija su ma fa jógee dem ci place équipe bi nga xam ne ñoo nekk Kër Massar ci marché bi dem ba Gambie aussi di euh, waxaale équipe bi nga xam ne ñoo nekk Gambie parce que King Cosmétique c'est toute une équipe dafa am ñu nekk ci ginnaaw ñu bëree bëri ak ñu nekk Thiès tey bu ñu raamee ba ak ci Touba di xamal waa Touba ne leen wax dëgg yàlla lépp loo xam day yàq yaram te nekk ci marché bi war nañ koo mën a moytu dinañ sensibiliser moytu leen ko wax leen danger yi nga xam ne moo ci nekk feebar yi mën a jur ndax feebar yu bare bari bari diw yaram yi ñuy jaay ci marché bi ak hydroquinone bu bari bi ci nekk mun naa indi feebar bi nga xam ne mooy diabète mun naa indi li nga xamante ni mooy cancer du peau euh, kon bu yàlla defee King Cosmétique ñëw euh, fii ci Touba indi produit yi nga xamante ni 100 pour cent bio naturel la jóge fi nga xam ni mooy Thaïlande te ku ne xam ne Thaïlande ña fay jaay ay produits mooy ñi nga xamante ni ay docteur lañ di ay médecins ñooy jaay produits yi. voilà di euh, nuyu tamit ci live bi ci ci ci interview bi. ñu ngi nuyu travers suñuy clients yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réew mi ak ñi nga xamante ñoom ñoo nekk bitim réew ndax bu ma limee mun naa juum waaye nag ku ne xam na ni King Cosmétique fi mu gën a évoluer ak King Cosmétique fi nga ko gën a xamee mooy bitim réew ñu nekk ci réew mi kenn demul ñu des ndax wax dëgg yàlla bi ñu xamee ni bitik bii day yëngut ci produit bio ba tey ñu ngi ko jox bopp di ko topp ci suñuy produit di sant nag Sénégal gépp ndax euh, koo xamul noo koy def nam la def moo tax gis nañ Sénégalais yi ni nga xamante ni moom la ñu def ndax ibbi nañ seen xel yi ibbi seen xalaat yi ibbi seen xol yi dugal ci King Cosmétique fu ne la ñuy jugee du jënd suñuy produit daanaka dañuy am problème sax par jour commande yi day tegaloo ba dañuy am problème te loolu dara waraloo ko du confiance ñun nag confiance bi ñu sénégalais jox ñaan nañ yàlla mu bañ a tas dinañ yokk góor góorlu yokk xam-xam bi gën a lëkkaloog ñi nga xamante ni mooy médecins yi ak dermato yi ba résultat bii nga xam ne ñu ngi koy am ci liggéey bii ñuy liggéey mu gën a jëm kanam ndax wax dëgg yàlla dañuy liggéey mais on travaille pour les sénégalais te nag ñu ngi contribuer bu baax a baax a baax ci développement dëkk bi ndax ñu ngi sensibiliser di dénoncer li nga xam ne mooy produit li mën a yàq yaram te bépp produit bu baax boo xam ne am na ci àdduna fu mu mënti nekk lu mu sori sori danañ ko jëli jox ko askan bi loolu moo tax ma ne ñu ngi contribuer bu baax a baax a baax baax ci développement dëkk bi kon boog ne clients yi xippi seen bët xool xam ne King Cosmétique ñëw na te mi ngi sensibiliser travers ci seeni live ñu ngi dénoncer li nga xam ne mooy produit chimique yi di wax danger yi mu mën a am ci yaram ñu ngi profité tamit ci occasion yi produit bu baax bu ne ñu ngi koy dégtal sénégalais yi di leen ko jox di nuyu équipe bi ma àndal yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo responsable yi nga xam ne ñoo nekk King Cosmétique euh, ku ci mel ni Abdoulahat Cheikh Abdoulahat ci responsable yi la bokk sëñ Fallou sëñ Fallou Boy moom it ci responsable King Cosmétique la bokk sëñ Modou ci responsable King Cosmétique la bokk Marie Marignan ci responsable King Cosmétique la bokk Ndey Assou ci responsable King Cosmétique la bokk ak Issa ñoom ñëpp ay responsable parce que place boo fa nekkee ñu jël dara jox la ko ne la yow yaa ko war a doxal rek xamal ni responsable nga may profité di wax waa King Cosmétique fu waaye nekk na nga góorgóorlu te xam ni Sénégal kat jox ñu bopp te dañoo sas sas bi mooy koo wax mun la King Cosmétique seen i produits dafa doy waar te ñu koy liggéey xam nañ li ñuy jaay te ndaw ña fa nekk danoo yaru te boo fa demee dinañ la def di nan la boo fa demee rek li nga xamante ni moom nga bëgg danga ko fa fekk di nga fa fekk ndaw yi nga xam danoo xarañ lool di la dalal di la jaay produit yi produit yi am ko di ko jaay taxul sax nga mën a am nga mën a satisfaire nit ñi produit da nga koy xam ba noppi doo koo jaay kon gàcce ngalaama waa King Cosmétique man bu ma fa nekkul sa xale yi fa nekk xam nañ produit yi boo ñëwee lépp lu la jaaxal ci produit dana la ko wax kon képp koo xamante ni yaa ngi dem King Cosmétique bu ma fa nekkee ak bu ma fa nekkul ña fa nekk xam nañ liggéey bi miin nañ ko xam nañ produit yi ñuy jaay boo ñëwee dana la jaay dalal la lu ci nekk dana la wax nan nga koy utiliser li nga war a diwoo guddi dana na la lii guddi nga koy diwoo crème hydratation ñu ne lii bëccëg nga koy diwoo bu la jaayee traitement cere sax dina la wax nan nga koy appliquer kon gàcce nga laa ma waa King Cosmétique di nuyu nag suñu clients yi nga xam ne ñoo ñu dooleel ndax olof Ndiaye nee na feccu liir bu lee bu neexee rek nday jàpp ca mbagg ya kon maa ngi nuyu ñi nga xamante ni mooy clients yi ñoo ñu dooleel ñoom ñoo tax ñu am sañ-sañu fu ne ci Sénégal ñu bëgg faa ibi place ndax bu ñu doon ibi place te gis ñu client duñu am sax mooy bu ñu ibee yeneen place mais place yi ñuy ibi confiance la boo xamante ne clients yi ñoo ñu ko jox muy sénégalais yi du nuyu ñëpp macha allah site internet yi fi jaar yëpp ñu ngi leen di nuyu. maa ngi nuyu ñi ma àndal bis bi ku ci mel ni euh, Mouhamed Alla Diop maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di rafetlu teewaayam fii ci Touba. Euh, ngir King Cosmétique ak jëmmal bis bi Tawfekh Mbaye aussi mu Serigne Saliou gis nañ li mu def ci bis bi ñëw na wane na yéenam moom it ñu ngi koy nuyu King Cosmétique amel na ko njukkal ñu ngi koy sant di ko gërëm Mohamed Niang mu Serigne Saliou ànd na ak ñun ak bis bi euh, euh, ki nga xamante ni mooy Pape Pape Mboup mu Cheikh Béthio ànd na ak ñun ak bis bi Serigne Saliou Darou Salaam doomu Cheikh tamit ànd na ak ñun ak bis bi ak Mbàkke Mbàkke yi fi jaar yëpp dinaa jël nag nuyoo Mbàkke Mbàkke yi teg ko ci sëñ Mourtada mu Serigne mu Serigne mu sëñ Euh, mu sëñ Moustapha mu sëñ euh, mu sëñ Alaaji Baara mu Alaaji Baara moom Serigne Fallou moom Serigne Fallou moom bu ma ko tuddee rek mun naa yebale bépp mbàkke-mbàkke bu fi jaar teg naa sant gi teg naa ko ci loxoom mu wasaareel ma ko ci bépp kilifa bu fi jaar bon King Cosmétique la woon di leen wax ni mun ngeen ñoo xaar ci numéro yi ngeen woote su ngeen bëggee lu baax bu leen dem nag ci marché bi ñu leen nax naan leen ñay jaay naan leen ñoom ñooy waa King Cosmétique suñu équipe ñëpp ko xam numéro yi nga xam ne mooy numéro King Cosmétique danañ ko jàllale ci baar bi ñëpp mën koo xam parce que ñi ñuy arnaqué naan leen ñoom ñooy King Cosmétique bari na ci dëkk bi te bëgguma kenn loru damaa bëgg client bu jug rek am suñuy produit produit yi yéene naa ko ñëpp kon numéro yi ñu joxe xool leen ko bu baax a baax dinañ dugal numéro tubaab bi dugal numéro Thiès bi dugal numéro Gambie bi dugal numéro bi nga xamante ni mooy numéro Dakar kon yaakaar naa buñ dugalee numéro yi kenn dootul nax kenn naan ko moom mooy king cosmétique te nekkul king cosmétique king cosmétique boo ñëwee ba ci ñoom di nga xam ne ñii ñooy king cosmétique ndax am différence bu bëree bëri ak produit li ni jaay amuñu ko chaque jour ma wax ko ñun li nga xam ne moom la ñuy jaay amul ci na noo feeñal ñun réeruñu produit bi nga xam ne koy jaay amul concurrence ñun rek ñoo koy jaay produit bi ñuy jaay ci marché bi boo duggee suñu bitik doo am ne képp ku ñëw king cosmétique di kenn du jaawale kenn war ñoo jaawale produit yi bokkuñu merci beaucoup ci sama live maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam merci. yéen waa Touba euh, pour ma joxal leen adresse boutique bi mi ngi nekk fii ci corniche Daara Jolof euh, dend ak euh, ci tëli bi nga xamante ni moo jëm route route bi jëm Ndindi kër sëñ Abdou Karim Mbacke Baram Makarimal Axlaa nekk tamit ci kanamu jumaa ji ci ginnaaw armeer yi boo ko paasee rek daanaka am na banque CBAO bi nga xamante ni moo nekk ci ginnaaw banque bi ak place bi ñoo dend. kon place bi place bu neex a xam la maanaam ginnaaw kanamu jumaa ji la fa nekk lépp benn banque moo fa am benn banque CBAO euh, boo jógee sa càmmoñ tamit da ngay ñëw pharmacie jaxate boo ko dépassé di nga gis kiñ cosmétique di nga gis logo bi di nga gis affiche bi boo jógee ci kanamu jumaa ji nag jógee fi nga xamante ni mooy jumaa ji mooy mel ni ku jëm gaaras daaru jolof sow la mi ngi lay féetee gauche bitig ba foofu la nekk numéro bi nga xamante ni mooy numéro fii Touba mooy 77 474 96 96

numéro yaa ngi noonu mun ngeen woote ci numéro yi mun ngeen a topp adresse bi ba dugg ci bitig bi mais ku fi ñëwul ñu ngi lay xaar te xam liñ fiy jaay njariñu ñëpp la King Cosmétique ku ko xam wala ku ko am dootoo dem di wuti leneen ndax wax dëgg yàlla cere ñoo ci mën traitement cere ñoo ci mën traitement rew ñoo ci mën traitement allergie ñoo ci mën traitement chronique King Cosmétique moo ci mën rew lu muy garaaw garaaw deux koy traité cere lu muy garaaw garaaw ci yaram une semaine lañ koy traité chronique bi nga xamante ni moo jaaxal xale yi jigéen leen ndax tàngaay bi ak produit chimique bi